Bonsoir, fidèles auditeurs et auditrices la rajo du bonheur merci de nous rester fidèles donc sur la rajo du bonheur salaamaaleykum mbokk déglukatu Rewmi FM euh, dal leen na jàmm seen émission sans filtre euh, jotaay ndaw ñi la fii ci Rewmi FM lay amee euh, mercredi bu jotee 15h jàpp 16h fii ci Rewmi FM Mor Fall tey on a l'honneur et le plaisir de recevoir de jeunes entrepreneurs monsieur et madame Diop ils ont fondé ensemble une entreprise dénommée Adigitata IT d'Ambassar Makhtar Diop euh, Débora euh, Gaché euh, balaa ma leen di jox kàddu gi moo faal ma bàyyi la nga nuyoon teg mbokk déglukat yi. waaw voilà Sylvie maa ngi leen nuyu di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi ñuy suivre à travers. Mhm. li nga xamante ni mooy réew mi FM réew mi point com aussi à travers notre page Facebook. donc di dalal suñu ay invité di leen wax soyez les bienvenus donc fi nga xamante ni mooy rajo réew mi. Mhm. donc donc ñu di dalal daal fii ci rajo réew mi daal. waaw Mor Fall nga commencé avec la rubrique euh, actualité du jour euh, balaa ñuy dugg ci débat bi. waaw voilà comme ni ñu koy defee saa su nekk rek euh, laataa ñoo tàmbali liggéey bi dañuy euh, euh, andi tey actualité bi ñu daal di koy accentuer ci li nga xamante ni moom mooy wàllu inondation yi parce que temps yi bëri na trop ci biir réew mi mu andi nag benn coow bu mag ci diggante li nga xamante ni moom mooy askan wi ak ñi nga xamante ni ñooy gouvernement bi dem sax ba ñenn ñi yenn propos yi nga xamante ni nguur gi dañ koy wax dañ koy tuddee des mensonges yi nga xamante ni mooy gouvernemental la ñuy wax donc parce que booba léegi li nga xamante ni gis nañ ko loo xamante nañ ko annoncé woon Euh, parce que ministre bi nga xamante ni moom yor wàllu infrastructure ak wàllu inondation dafa waxoon ne en 2021 il y d'inondation à Dakar encore moins dans la banlieue parce qu'on a investi plus de 600 milliards ci wàllu inondation yi mhm. et les travaux étaient en avancement de plus de dégg nag euh, li nga xamante moo amoon Dakar keroog taw bi nga xamante moo amoon samedi euh, même pas 88 millimètres moo wàcc Dakar et il y a eu des fi nga xamante ñoo nekk ci euh, côté banlieue bi parce que disent que euh, état bi respecté wu leen parce que chaque fois il leur donne des euh, li nga xamante ni mooy ay promesses yoo xamante ni c'est pas tenu léegi nag fi mu nekk nii ce que les gens pour mu mooy bëggatuñu kenn ku fa ñëw di wax na leen euh, délai bii la ñuy joxe ou bien l'autre délai. parce que mhm. ils disent que ils ont euh, failli à leur mission parce que bi mooy troisième fois ñu leen wax ne les travaux seront euh, seront terminés li nga xamante ne mooy avant inondation avant hivernage bi mais booba léegi il pen a à li nga xamante mooy réaliser yooyu infrastructure mhm. donc fi mu nekk nii nag. les gens demandent ñu def audit où sont passés les six cent milliards qui ont été investis ci wàllu inondation ci diggante euh, Kër Massar Thiaroye ak banlieue bi. Mm-hmm. parce qu'ils disent que cent milliards fu ñu ko def alors que dañoo waxoon ne les travaux sont à quatre vingt dix pour cent des réalisations fi mu nekk nii ku dem Kër Massar on peut dire que même pas cinq pour cent de de travaux. Mm-hmm. léegi nag loolu moo nekk li nga xamante ni moom mooy euh, bi am ci li nga xamante ni moom mooy euh, biir euh, réew mi ci li nga xamante ni moom mooy ñeel wàllu actualité yi ci biir réew mi juste ma def benn résumé rek pour notre invité qui est là on est en train de parler des inondations au Sénégal parce que la plupart des des travaux qui ont été entamés le ministre qui est en charge des inondations avait dit que il allait donc terminer les travaux à 90 pour cent avant les l'installation de l'hivernage mm-hmm. mais il s'est trouvé que la plupart des des dans euh, dans ces dans ces lieux donc euh, impactés par les eaux ils disent que donc ils ne peuvent pas croire à ce que euh, l'État du Sénégal dit parce que ils avaient dit que ils avaient investi 600 milliards donc euh, sur euh, donc euh, les inondations pour lutter contre l'inondation mais ils, ils ont vu que les travaux donc, donc ne sont pas terminés

gouvernement c'est juste des, des mensonges gouvernementaux parce ce qu'ils cherchent à, dire euh, c'est faire la politique et, et, et promouvoir donc leur, leur, leur image mais euh, la vécu de, de, ces populations ne leur préoccupe pas donc c'est ça qu'on a amené aujourd'hui comme comme actualité mhm. euh, donc phare au, niveau du Sénégal avec donc Rewmi FM et pour, nos internautes aussi Morphal et pour clore donc cette rubrique actualité n'oublions pas ces étudiants orientés dans le privé qui ont été chassés hier des écoles voilà ils sont au plus nombre de dix mille étudiants ils ont été chassés hier donc euh, ils ont tenu un point de presse ce matin nous y reviendrons euh, moo fa dañuy dugg rek euh, ci suñu sujet tey ñu dalal Demba Sarr Diop ak Deborah Gaché les fondateurs d'une entreprise dénommée Digitata IT je vais commencer par Demba Demba Sarr Diop ñu bàyyi la nga yoon teg mbokku déglukat yi balaa ñu jox kàddu madame Diop. salaamaaleykum. <laughs> nuyu naa la Sylvie nuyu naa la euh, maa ngi nuyu aussi donc l' de la communauté. Mm-hmm. donc de Rewmi FM. Mm-hmm. donc euh, merci pour euh, antenne bi. voilà c' est un plaisir. donc mm -hmm. est Demba Sarr Diop. Mm président et cofondateur donc de Digitata IT France et Sénégal. donc voilà Digitata IT c' un groupe un cons une consortium qu'on voudrait, qu'on souhaiterait donc installer donc, en France, en Europe, mais aussi partout en Afrique. Mmh. Et aujourd'hui, à l'état actuel où je vous parle on a commencé donc par la France et elle est aussi euh, opérationnelle aujourd'hui euh, sur mmh. le mhm. Sénégal. Mmh. Donc on a tout ce qu'il faut. D'accord. Euh, Madame Diop, Déborah Gaché, euh, on est très heureux de vous accueillir sur ce plateau. On vous laisse saluer les auditeurs de Rewmi FM. Bonjour à tous. Bon, bah, je suis Déborah Gaché, donc euh, participante, enfin cofondatrice de Digitata IT et euh, donc moi je suis la chargée d'affaires de Digitata IT. Mmh. Euh, d'accord donc euh, nous allons commencer euh, le projet c'est Digitata IT l'entreprise est dénommée Digitata IT. Mhm. comment est-ce que l'idée vous est venue <laughs> waaw euh, l'idée nous est venue donc suite à une demande très importante donc au début de la pandémie en France à l'époque euh, je travaillais pour une entreprise qui s'appelait Soprastaria mm -hmm. et j'étais spécialisé dans ce qu'on appelle l'automatisation des processus métiers euh, c'est quoi l'automatisation des processus métiers C'est le fait en fait de créer des assistants virtuels. Mm Et ces assistants, tout ce que l'être humain peut faire avec la souris et son clavier, mm-hmm. nit ki ba bi mm-hmm. noonu lañ koy woowe en anglais mais en français on dit assistant virtuel. Mm voilà donc assistant virtuel lépp lu nit def ak loxoom. ak clavier am. assistant virtuel bi mun na ko def. voilà donc assistant virtuel yi aussi nekkuñ ñuy ay robot yoo xam ne c'est de l'intelligence artificielle mhm. man je fais je fais de l'intelligence automation mhm. donc intelligence artificielle mun na remplacer nit ki mais assistant virtuel da lay accompagner seulement par exemple nga am tâche yu bëri moom am na ay tâches yoo xam ne moom mun na ko def au moment où yow nga concentré wu sa client mhm. donc sa permet donc je travaillais à l'époque donc pour les assureurs donc j'ai travaillé pour les assurances pendant cinq ans donc assistant virtuel yooyu ñu leen doon defal da doon tax ñoom ñi gën a toppatoo seen i clients. Mhm. au même moment où assistant virtuel bi moom mi ngi def liggéey informatique bi voilà pandémie bi nag bi mu yegsee euh, côté santé bi y avait beaucoup trop de demandes donc la demande était très importante et ça avait créé pas mal de chômage en France dont notamment mes amis proches. Mmh. donc on était un groupe de dizaine d'amis voilà mais presque sept yëpp ñu ngi au chômage mhm. donc voyant cette situation moi étant dans l'informatique alhamdoulilah tout allait bien mhm, mhm. mais voyant mes amis donc ma femme et tous au chômage je me suis dit il fallait que je fasse quelque chose c'est en ce moment qu'on s'est concerté pendant presque neuf mois pour trouver donc l'idée Digitata Haïti c'est comme ça qu'on l'a lancé en France et quelques mois aussi après on a donc répondu à l'appel du président donc qui souhaitait donc l'insertion professionnelle des jeunes au Sénégal. Mm -hmm. Et vu que la technologie de l'automation n'est pas encore arrivée en Afrique, mm -hmm. nous nous sommes dit, bah, il est temps qu'on y participe mm -hmm. à notre tour. D'accord. Euh, Madame Diop, euh, où en est le projet actuellement Mais À quelle il, phase euh, Il est en phase de ça y est, l'entreprise donc est installée au Sénégal. Mhm. Euh, là, donc, on est en plein démarchage de, de clients, comme on dit, euh, ainsi que donc on cherche euh, des jeunes qui voudraient par participer, par faire partie de cette euh, aventure avec nous. Mm -hmm. euh, donc pour le moment, c'en est là. En France, c'est un peu plus compliqué euh, d'un autre côté, du coup, à cause de la pandémie, mm -hmm. comme M. Diop vient de le dire. Euh, mais on y travaille fortement aussi. Mmh. Donc pour le moment, vous êtes euh, uniquement implanté au Sénégal, mais en France, c'est pas encore effectif. C'est effectif, c'est mmh. effectif, mais la, le démarchage des clientèles est, est, beaucoup plus compliqué, sachant que nous, en France, tout est fait en fait. Mm -hmm. Au niveau de l'automatisation, c'est comme euh, M. Diop l'a dit, il, il travaillait mm -hmm. déjà dans une entreprise qui faisait ça. Mm -hmm. Et en Afrique, on a remarqué qu'il y a peu, peu d'entreprises qui le font, donc c'est plus facile, on va dire. Mhm. D'accord. Mhm. Et, et euh, concernant le financement, euh, comment est-ce que ça s'est passé euh, Vous vous êtes autofinancé ou bien vous avez bénéficié d'un financement Exactement. Mais juste avant de répondre à cette question, donc je vais revenir sur Digidata IT France. Mm-hmm. Mm-hmm. Nous avons créé Digidata IT France en premier. Mm-hmm. Voilà, on a travaillé quelques mois là-bas et on est sept associés. Donc il y a comme Madame Gachet qui sommes actuellement au Sénégal. Il y a nos cinq associés qui travaillent sur place. Voilà. Euh, la deuxième phase donc était le Sénégal. Donc on s'est installé actuellement au Sénégal. Euh, on a travaillé avec le notaire Maître Nafisatou Sissé. a nos papiers. Actuellement de recruter. on recrute des commerciaux, on recrute des développeurs. Mm -hmm. Donc ça, c'est pour Digitata IT Sénégal. Donc pour répondre maintenant à votre question, effectivement, nous nous sommes autofinancés mm -hmm. en France. Euh, on avait la possibilité d'avoir des prêts de l'État. On avait aussi la possibilité euh, d'avoir. Euh, il y a pas mal de structures qui accompagnent les entreprises en France. Mhm. Mais nous, avons, décidé à l'époque de nous autofinancer. On était sept associés. Mhm. on a, on a cotisé, on a donné chacun une somme et on s'est retrouvé avec euros. Mhm. Et c'est avec ce montant qu'on a créé donc l'entreprise en France. Au Sénégal aussi, on ne peut pas nous autofinancer nous-mêmes. pourquoi les gens nous aideront Il faut qu'on mette de, de, de, de, notre argent en fait. Mm -hmm. Une fois qu'on met notre argent sur la table, là on va respecter mm -hmm. euh, la décision de créer une entreprise. Mm -hmm. Voilà. Mais si on est autofinancé, on ne sait pas d'où vient l'argent, c'est de l'argent facile, bah, on ne va pas s'en occuper en fait comme il le faut. Mm-hmm. Donc c'est pourquoi on a décidé, nous dans nos entreprises, au début, nous nous autofinançons. Mm-hmm. Voilà. Et après avec le temps, si besoin est, en ce moment, on pourra donc faire des prêts. Ok, ok. Moi, moi euh, la question que j'ai, c'est de revenir sur, un peu sur, sur, le nom que vous avez choisi comme Digitata, parce que je ne me Digitata, c'est un, un, donc, scientifique d'une plante euh, africaine. Donc, mhm. pourquoi Digitata C'est pour montrer donc, la grandeur donc, de, l'entreprise ou bien le, degré donc, du projet. pourquoi digitata alors qu'il y a, y a, y a d'autres qui euh, d'utiliser les, les, les, termes technologiques comme <laughs> Merci Mor, c'est la première fois qu'on nous pose cette <laughs> question. <laughs> Et honnêtement, quand on crée l'entreprise, on se disait que on aimerait à chaque fois qu'on est en interview, on nous pose cette question. Donc merci à toi, c'est un plaisir. Donc effectivement, on, a, s'est inspiré du Baobab. Au début, on voulait appeler notre entreprise Baobab. Mm-hmm. Pourquoi Baobab Parce que le Baobab en période de chaleur en période de froid le baobab reste toujours sur place des fois si je le considère comme une personne il a tellement faim qu'il change de couleur il devient blanc etc mais quand mm la mhm. pluie revient c'est comme si le baobab renaissait voilà et, et il se retrouve avec ses fleurs ses feuilles ça devient joli donc c'est voilà. la capacité d'adaptation il faut être obstiné dans mhm. ce monde d'aujourd'hui mhm. les temps sont durs ça reste pas dur infiniment voilà c'est c'est c'est c'est l'idée que j'avais à l'époque c'est moi qui avais mhm. trouvé le nom qui l'avais mhm. proposé au groupe mhm. mais c'est l'idée que je de mes amis soudain y a le coronavirus qui est arrivé bim ils ont tous perdu leur travail ils étaient là à leur famille à envoyer de l'argent au Sénégal etc tout s'est coupé d'un seul coup je les ai dit obstination il faut qu'on soit têtu comme le baobab là où on vient ça Voilà, on est six Sénégalais dans l'entreprise. Il Madame Gachet qui est française. Mm-hmm. Voilà. voilà. Mm-hmm. <laughs> Exactement. le moment, Donc voilà, c'était pour galvaniser mon équipe, mes associés, leur dire que vous découragez pas. Mm-hmm. La vie, c'est ainsi faite. Il a des moments où on est là, il a des moments où on descend. Mais il faut y croire, on va remonter et on va dépasser le niveau où on était. C'est comme ça que euh, l'idée de Baobab, on en parlait tout le temps dans nos débats. Et pour terme baobab, on a utilisé Digitata IT qui sont non scientifiques. Mm -hmm. Et Digitata IT, c'était pour faire donc euh, digital, mm-hmm. transformation, application. Voilà, donc nous faisons donc de la transformation digitale des applications. Mm Donc dans le domaine IT. Mm-hmm. D'accord. Euh, on va revenir à Madame Diop. En quelle année le projet, l'entreprise a été créée et aussi comment est-ce qu'aujourd'hui on peut réussir l'autonomisation L'automatisation. Euh, du coup, l'entreprise, elle a été créée en 2020, si je me trompe. Euh. C'est encore jeune. <laughs> voilà, c'est ouais, encore jeune, ça, mm -hmm. ça, a un an, mm -hmm. depuis janvier. Euh, ouais, pour l'automatisation, euh, alors, moi, je suis pas très calée au niveau de l'automatisation, c'est plutôt mm -hmm. la partie de monsieur. D'accord. C'est par la, partie, la partie technique de l'entreprise. peut parler de la division de l'entreprise, ouais. Mhm. Voilà. Donc voilà, Digital IT est divisé en trois parties, trois départements. Donc on a notre département conseil, mhm. mettons Madame Gachet responsable. Voilà. Et département donc conception aussi. Elle est donc cette responsable. Moi, je suis technique. Mm-hmm. Et en plus d'expérience dans l'entreprise, dans le domaine informatique, donc je me suis chargé d'être le responsable technique de l'équipe. Mm-hmm. dans le département technique, donc c'est structuré en trois pôles. Donc premier pôle, c'est le pôle donc formation. Parce que l'automatisation, c'est une technologie qui est aux États-Unis il y a des années. Mm-hmm. Mais en France, on faisait de l'automatisation, mais c'était juste pour les grandes entreprises. Mais une fois que la pandémie est arrivée, même les petites structures avaient besoin d'automatisation parce que c'était pas évident de travailler à la maison avec ses enfants à côté. Mhm. imagine si un assistant virtuel qui fait la moitié du travail, ça te permet aussi de passer 5 minutes avec ton enfant, tu vois, etc. Ça fait gagner du temps en tout cas à mhm. l'entreprise. Mhm. Donc oh, la première, le premier pôle donc du département technique, et le pôle formation. Mmh. On a recruté donc pas mal de jeunes qu'on a formés en France. J'ai fini euh, juste avant de venir, euh, je venais juste de finaliser donc euh, six mois de formation avec euh, des développeurs que j'avais pris en stage. Voilà, après je les ai dit, bah moi je vais m'implanter au Sénégal. voilà, je vais recruter là-bas des jeunes pour les former. Mm -hmm. Donc, pôle formation, c'est le plus important mm -hmm. de notre département technique. Mhm. Au-delà donc de notre pôle formation, il y a la le pôle automatisation où on fait donc de l'ancienne technologie qui s'appelle VBA Office, On fait donc de l'automatisation avec Microsoft. Beaucoup de gens ne savent pas. Mhm. Mais aussi, on fait donc de l'automatisation avec ce qu'on appelle la RPA, qui est la mhm. nouvelle technologie réellement. Mm -hmm. la RPA, c'est Robotic Process Automation. Mm -hmm. Et à l'intérieur de cette technologie, il y a plusieurs technologies encore. Et moi, je suis spécialisé dans ce qu'on appelle UiPass. Mm-hmm. la technologie UiPass, qui est une entreprise cotée en bourse aux États-Unis. Mais après, il y a Blue Prism, il y a pas mal donc de technologies qui ne sont pas encore arrivées au Sénégal. Mm-hmm. Donc, si aujourd'hui je récupère un marché sur l'automatisation, je pense que je serai le seul développeur. Mmh. Donc, le point le plus important pour moi actuellement, c'est de former au minimum 5 développeurs qui pourront me soutenir donc, dans mes projets ou avec qui je pourrais travailler mmh. si on gagne des marchés d'automatisation. D'accord. Mmh. Euh, si vous avez créé donc, cette entreprise, je suppose que c'est pour lutter contre le chômage des jeunes. Est-ce que vous avez employé des jeunes dans ce sens à part euh, les associés, bien sûr En France, on a essayé, mais comme Madame Gachet l'a évoqué, c'est un tout petit peu plus compliqué en France parce mm on trouve des clients, mais les clients se disent à n'importe quel moment, le gouvernement peut refermer le pays. Mhm. Et ça, va cesser leurs activités. Mhm. s'ils nous embauchent et qu'on signe des contrats, ils seront obligés de les honorer alors qu'ils ne travaillent pas. Mhm. Donc, c'est ce qui a coupé donc pas mal de nos Cependant, au Sénégal, depuis que je suis arrivé, j'ai eu des entretiens avec euh, une trentaine de, de, personnes, de jeunes développeurs, etc. Mmh. Mais je me retrouve en difficulté dans le sens où la majeure partie m'ont dit que l'anglais, c'est un problème pour eux. Mmh. Alors que toutes les technologies que j'utilise sont en anglais. La dernière fois, on m'a posé la question, oui, mais est-ce que tu peux pas leur enseigner en Wolof Si, je peux le faire, je parle très bien le Wolof. Je peux leur expliquer en Wolof, je peux leur faire les cours en français. Mm-hmm. Mais imaginez le temps que je vais perdre mm-hmm. à traduire les cours d'anglais en français, de le leur faire comprendre, mais le problème ne se trouve pas là. Le problème se trouve au niveau des certifications. Parce que si je leur apprends la fin donc de ce cours, ils Et ces, certific ces examens qu'ils vont passer avoir leur diplôme sont en anglais. Mhm. Donc, comment apprendre en Wolof, réciter en anglais c'est compliqué, C'est compliqué au Sénégal. Mhm. Euh, donc actuellement, euh, qu'est-ce que vous avez besoin pour décoller Waouh Honnêtement, <laughs> ressources humaines, je dirais. Parce aujourd'hui, nous, nous, sommes des informaticiens, nous pouvons tous travailler chez nous. Mhm. Et avec les systèmes qui existent, on peut tous travailler ensemble, on se voit sur des visioconférences, mmh. etc. On n'a pas ce problème de locaux, ni d'Internet, etc. Mhm. Mais moi, la barrière principale que j'ai au niveau technique, c'est l'anglais. Et euh, la plupart des développeurs que j'ai rencontrés ici au Sénégal me mhm. disent que moi, je sais faire des, des, sites Internet. Alors qu'en France, aujourd'hui, tu les obtiens en 5 minutes parce que c'est des robots, des assistants virtuels que j'ai mhm. créés, mhm. qui les créent. Je peux donner pas mal d'exemples de sites où tu peux obtenir ton site en 5 minutes. Mhm. Il suffit juste de mettre ton logo, ta description, etc. en 5 minutes. Tu, fais le plugin et après le site il Donc, si je croise ou si j'ai des entretiens avec des gens qui me disent euh, waouh, mon site internet alors que technologie yi en France dépassé nañu après mhm. xam nga donc soit man maay ci tolloog seen niveau mhm. soit il me faut beaucoup plus de temps pour ma xëcc leen ba ci kaw mhm. les problèmes boobu la am ak sama associé yi boo fi jëlee stagiaire actuellement stagiaire yi ma jëlagum ñu ngi ci phase signature maa ngi koy fay par exemple euh, cent euros par mois le stage euh, le stage sans compter le transport euh, participation à wifi et cetera mm donc je me retrouve avec des stagiaires à cent cinquante mille francs CFA mois su ma leen waroon former en trois mois ñu seen diplôme niveau anglais bu baaxul bi ak euh, li ñu ñinul yenn technologie donc il faut que ma rallonger ko ba six mois. Hmm. sama associé yi ne ma nag ñoom mënuñu fay pour nga former ay nit pendant six mois. Hmm. problème boobu laa su ma waree former par exemple dix euh, développeur ce qui me fera donc presque euh, euh, cent cinquante mille par mois fois dix euh, ça fait un million cinq cent nga multiplier ko par dix personnes sama associé yi nangu nangu wuñ kii boobu te man tamit former deux personnes day métti si man quoi mhm. voilà je préfère former benn groupe boo xam ne avec le mhm. temps voilà ñoom dinañ mën a sax après jël relais bi former ñeneen. Mm-hmm. mais booy former deux par deux par deux après kañ laay def sama liggéeyu France parce que sama liggéeyu France aussi daf may xaar. Mm-hmm. sama liggéeyu CEO directeur de l' daf may xaar damay may rendez-vous commerciaux j' accompagne madame parce que kon maîtrise le Sénégal. Mm-hmm. donc je l' accompagne sur pas mal de démarchage et <laughs> donc boo war boole di former deux personnes par deux personnes d' créer une entreprise en France et au Sénégal ba mu si a yomb euh, euh, avec une dame qui voulait créer une entreprise en France mais dit que c'est beaucoup plus facile de euh, créer une entreprise fi nga xamante qu'en France parce qu'il y a beaucoup de de à faire de de papiers du genre si vous pouvez répondre cette question. Ah en France. et vous vous êtes venu au Sénégal. donc mm-hmm. comment donc là où c'était beaucoup plus facile donc de de de. de faire les démarches pour, mm-hmm. c'est plus facile au Sénégal. Mm-hmm. En France, euh, on a fait un an d'études de marché. Exact. un an. toog nañ ñun ñëpp kenn liggéeyu. Mm-hmm. un an dañuy yeewu di xool en France nan lañ mën a jaar ba dañuy tëll rek am ay clients. parce que comme madame l'a évoqué. France dafa saturé. entreprise en service numérique yi dafa am ay entreprises qui se font des milliards de chiffres d'affaires. te boo ñu génnee nekk xale rek dañu lay teel a écraser. Mm-hmm. donc il fallait trouver benn benn chemin de marketing digital de pas mal de choses yoo xam ne boo génnee pour ñu écraser la du yomb. d'autant plus que ñun majorité bi yëpp duñu waa dëkk ba affaire yooyu noonu donc écraser ñu day gën a yomb quoi. Mm-hmm. donc il fallait que ñu défendre donc on a pris un an pour faire l'étude de marché. Mm-hmm. un an yu métti. pleine pandémie ñu confiné ñu ku nekk ñu tëj la sa kër ak say doom ak yooyu donc liggéey liggéey bi métti affaire yooyu bi ñu defee nag suñu étude de marché aussi ba génn génnee suñu business plan ci dañ dem benn structure bu mel ni CCI chambre de commerce donc et d'industrie donc de France présenté leen ko le projet les a plu les a dépassé même niveau attente ñu amoon ak ñun fi ñu génn donc ça les a dépassé bi ñu demee banque aussi BNP Paribas donc ils ont approuvé le projet ils ils étaient d'accord pour nous accompagner même pour nous financer. Mhm. mais ñun à l'époque bëgguñu woon financement quoi. Mhm. donc voilà mais ici au Sénégal nag moom c'est beaucoup <laughs> plus facile. Mhm. et c'est beaucoup plus compliqué. à la fois facile <laughs> facilité bi mi ngi ci gaaw ci rapidité bi. j'ai vu le notaire une semaine après j'avais tous mes documents. en France si même mm, bi ñu defee démarchage yi pour nga am benn registre du commerce sax wala publication journal sax c'est tout un tas de problèmes mm-hmm. mais fii en une semaine j'ai tout j'ai eu tous les papiers au niveau de la banque aussi je suis arrivé à heures à la banque à onze heures j'avais signé mes contrats et tout <laughs> complication bi mi ngi nekkee ci doo xam yan ñooy sa concurrent doo xam ñan ñoo fi nekk par exemple tey boo ne woon la France je veux avoir la liste de toutes les entreprises qui sont au Sénégal doo ko am en tout cas gisaguma fan laa koy amee wër naa ci net bi ba sonn parce que ñun loolu lañu tàmm fii Sénégal mais est-ce aussi euh, li ngeen def ak Sénégal def bokk parce que tout à l'heure tu de gens yi nga xamante ni euh, naa la man euh, je crée des sites alors que yéen ci seen li def ak li nga xamante moom moom la gars yi di proposer c'est pas mm-hmm. ce que aussi euh, jëm ngeen def diagnostic boobu xam ndax Sénégal ils connaissent li nga xamante ne moom mooy euh, li ngeen ce que proposé parce que vous avez parlé d'automatisation et mm-hmm. euh, d'assistance informatique je sais pas. Mm-hmm. est-ce que aussi mu nga ñëw aussi lu nga def benn genre différence lan mooy assistance kii bi informatique bi ak lan lan mooy autonomisation pour que les gens puissent faire la distinction entre entre deux termes. ok alors pour loolu damay revenir juste digitale des applications par exemple en France boo soxlaa extrait de naissance casier judiciaire et mais da ngay dugg ci site mairie bi. Mhm. nga commandé bu amee timbre ba war a fay tu le payes nga toog tu le reçois par mail. Mm -hmm. ça ñu 72 heures ñun ñuy lijjanti certificat de résidence. moo ñu bloqué au niveau de de la police de Dieuppeul moom lañ ñu laaj ñu war ko lijjanti dem police de Dieuppeul dem leen mairie bi dem leen mairie ba et ba tey may wax ak yow amaguñ ko. c'est problème bi mooy da ñëw ñu la officier bi dafa añi dafa jël pause. dafa mais da am yeneen rendez exactement pour benn signature rek. Mhm. ñu bloqué sa activité yëpp. signature numérique. Mhm. mais monde bi fa la toll. dañoo war a avancer en fait il faut qu'on avance. parce que bu ñu xamoon man personnellement li ñu ma perteloo ñetti fan yi su ma ko estimer man en France su ma liggéeyee ñu may fay taux TGM par jour 600 euros trois jours su ma ko toogee liggéeyu moo mais day génn sama salaire. Mm-hmm. dama am njaboot dama am ñaari doom dama leen war a dundal. Mm-hmm. suñu entreprise ñoo ko financé suñu bopp. man ñetti fan yi may dem jaabante police jëppal mairie bu jëppal mairie Liberté 6 et cetera mais c'est de l'argent. Mm-hmm. officier bi dem moom peut-être inconsciemment ok d'accord amul problème mais bu xamoon ñi ko toog di ko xaar. temps boobu ñu fay def combien ça lui le temps en fait au Sénégal dama am impression que ne ñoom temps bi dañoo am bu bu àdduna bi nekkee de milliards de siècles Sénégal bi dafa jàpp ne moom am na milliards de siècles yooyu doon yëpp alors que ñun sax cent ans suuf kan jéggal leen ma mais fiy dund cent bëreetul ku amul nag cent ans ci suuf te nga am gëm ne yow da nga war def œuvre balaa ngaa dee mm-hmm. amoo temps booy perte quoi mm-hmm. temps boo ko toogee ñetti fan xëy dem 9h toog fa ba 11h mënuñ la wax ni l'officier ne sera pas là le lendemain tu reviens le lendemain on te dit dafa nga toog 14h. ba 16h personne peut pas du ñëwaat bu añi jee du ñëwaat yow yaay dem ba découragé mm-hmm. à la police même chose. police su jëppal mairie bu jëppal ci jumaa ji ngay jaar c'est à 250 mètres. non ils m'ont renvoyé à Liberté 6 ma dem ba foofu ñoom ñu ma du foofu da ngay delluwaat fa nga jógee woon mairie bi mi ngi nekk à côté de jumaa bi da ngay dugg tu fais deux cent am na mairie bu nekk mais ils te font perdre énormément de temps. Mm-hmm. en tant que nag ñu ngi ci perte de temps yooyu noonu dëkk bi du daan. mais est-ce que vous avez proposé ce genre ñu jéem a informatiser li nga xamante euh, euh, ngeen dem ci mairie du moins ngeen proposé leen ce genre de choses. mairie de Dieuppeul j'ai demandé au gars nan laay def ba gis monsieur le maire parce que dañoo créer benn application boo xam ne ça te permet ngay am sa extrait de naissance te doo bouger sa kër te pourtant di nga fay li nga war a fay comme timbre 300 francs mën nga ko fay par Wave désolé de la pub mën nga ko fay par système de moyen de paiement yi am fii mm-hmm. nii électronique mën na ne aujourd'hui ñu ngi fay suñuy courant fay suñuy ndox et cetera internet et cetera tout par notre téléphone man désolé man ñooy Sénégal bi fu ma yor liquide sax problème la mu duggee tax dama lay laaj ndax am nga lu ma la fayee par téléphone parce que wóorul la ngay ànd ak ñu mhm. yor yor xaalis liquide et cetera donc man électronique laay fayee donc pourquoi pas ñu def système boo xam ne boo soxlaa extrait boo soxlaa casier judiciaire boo soxlaa résident loo ti soxla ci dëkk bi mais da ngay gagner du temps da ngay dugg ci net bi di nga fay li nga war a fay tu le reçois par boo ko bëggee imprimer nga imprimer ko sa bopp existé na am na tollooguñu foofu nag malheureusement. <laughs> non je vous nañ fa nag <laughs> xoolal suñu développeur yi ma gis nii question de question de temps la mais day ñëw. ñun ñëpp fii lañ jàngee man j'ai fait trois ans à l'université Anta Diop balaa maa dem France ba ma demee France premier rapport ma bind yaa ngi def ko tiim da doon ree daf ni ma monsieur Diop man boo ma mënul sax boo xamul ni ñuy defee ay un deux trois ci page yi mais nga bind ak ma ko loxo mais sa page yi ba ma ko imprimer xaw ma ban mooy un xaw ma ban mooy trois <laughs> parce te def naa trois ans UCAD. te ñuy wax informatique donc ak euh, <laughs> <laughs> mais avec le temps j'ai fait huit ans en France. Mm -hmm. mais aujourd'hui je suis ingénieur en informatique et en automatisation dans la plus grande entreprise de France. Uh-huh. da gëm sa bopp. Uh-huh. dëgg la ñee raw nañ la tuuti mais raw amul boo gëmee sa bopp rek day ñëw. nangoo sacrifier bàyyi lépp ne man ingénieur en lii laa bëgg a nekk. nga def ci li war pour nekk. d'accord donc jeunes yi bu ñu leen accompagner. dañuy niveau bi euh, pour rappeler aux auditeurs qui nous ont pris en cours vous suivez votre émission sans filtre aujourd'hui nous recevons donc deux jeunes euh, entrepreneurs Demba Sar Diop et Déborah Gaché Madame Diop euh, les fondateurs d'une entreprise dénommée Digitata IT euh, vous l'avez dit tout à l'heure Monsieur Diop vous avez étudié en Europe vous avez passé là-bas plus de huit ans. Mhm. maintenant vous avez décidé de revenir au bercail former monter votre entreprise euh, lu waral loolu lan moo tax tey parce qu'on voit beaucoup de jeunes bu ñu une fois qu'ils partent en Europe c'est pour rester là-bas mm -hmm. à trouver après le après les études vont trouver là-bas du travail se marier mm -hmm. fonder une famille mais vous vous avez euh, choisi de revenir au Sénégal pour monter votre entreprise euh, pourquoi cela qu'est-ce qui vous a poussé à revenir au Sénégal pour ma part honnêtement j'ai toujours été patriote man je voulais même pas aller en France À l'époque, en 2010, où je faisais euh, mon baccalauréat, ma famille voulait que je parte en France parce que j'avais une sœur là-bas. Mmh. Mais moi, je ne voulais pas. Donc, ils payé à l'époque euh, des agences euh, qui font des prescriptions, etc. Mais moi, je ne respectais pas les rendez-vous. J'ai toujours cru pouvoir atteindre mes objectifs au Sénégal. Mais arrivé à, à l'université Chante Diop entre les années 2011, 2012, 2013, je me suis dit là, je pourrais jamais atteindre le niveau où je veux aller dans ma vie il y avait trop de grèves rien n'était sérieux et euh, j'avais pas mal de potes qui étaient en France qui me parlaient donc de la France là-bas où quand le professeur est en retard de deux minutes il s'excuse comme un enfant mhm. alors que nous à l'université Cheikh Anta Diop <laughs> non mais c'est vrai le prof retard deux minutes j'ai fait euh, trois ans d'études en France j'ai jamais vu un prof en retard absent, j'en parle même pas. Mmh. Le, les professeurs, programme programment sur leurs agendas leurs cours de l'année prochaine même. Mm-hmm. Retard de 5 minutes, mosuma ko gis. alors. alors que ici c'était pas sérieux du tout dañuy toog en fi 30 minutes di xaar prof duñ ko gis nga ñëw examen ñu jox la examen boo xam ne boo jëlee feuille bi examen wu France la alors que ñun programme bi yegguñ sax niveau boobu noonu. Mm-hmm. y pas de sérieux donc pour nga génne ci à l'époque il fallait que doo xaar prof bi en fait. Mhm. da jël say livre dem toog bibliothèque boo xam ne nombre de places c'était limité. Mhm. da ngay rang bibliothèque 7h30 nga fay taxaw ba 9h pour mun a am place boo toog. pour mun a am ci livre yu baax yi des fois nga sax jël livre bu baax fekk xotti nañ page bi yóbbu ko. Mhm. ma xam ne man niveau bi ma bëggoon yegg. mënoo fa ma fa yegg su ma bëggee te man dama ma a bëgg a nekk ingénieur. ba may xam mot ingénieur sa sama papa laa dégg mu naan ingénieur ingénieur fu ma toll naan ingénieur après nag may màgg di seet kii bi ba xam ko mu ko xamee man nag lii laa bëgg ma ñëw def fa quelques années première année ma dem euh, premier semestre ma dem euh, deuxième tour je me suis dit attention man fi ma bëgg a yegg ma bëggee yegg ay deuxième tour su toppee professeur yi ma ci génn en fait il ma trouver sama système mu bopp mm-hmm. nag laa mës a def ma dem trouver ñi nga xam ne dañu am ay mention UCAD ma laaj lan mooy secret bi ne ma ngay dem nga làqatu doo xaar profit début d'année xam nga ne cours yi lii ak lii la da dem jënd ko ci amical bi nga dem ubbi livre yi nga jàngal sa bopp ma def ca topp chemin boobu noonu yàlla dimbale ma cinq semestres yi si topp yëpp ay mention laa doon am ba ma demandé visa aussi première fois laa ko demande premier fois boobu lañu ma may ma dem France ma ñëwee France j'ai eu un mois de retard de cours malgré ça je suis sorti deuxième de ma promo et cetera ma génne deuxième sama promo à l'époque je j'étudiais à l'université de Rouen mm-hmm. di ko sama yaa di waxee dama mës a am folie de grandeur man dama doon wax naan man du ma jàngee université bu ndaw quoi man fi ma bëgg a yegg il faut ma dem jàngee université bu mag donc ma sob wootee université Pierre et Marie Curie Sorbonne laaj benn responsable aéronautique ne ko man sa formation bii laa bëgg a def su ma ko bëggee def lan laa war a def ba ñëw fi mu ne ma fii université d'excellence la boo amul ay not d'excellence doo fi ñëw ma ne ko lan ay note d'excellence en fait yooyu mu expliqué ma il faut nga am minimum moyenne annuelle 13 euh, donc ma gëm sama bopp jàng am ko mu jël ma euh, Sorbonne ma dem def fa donc sama master sama master 2 euh, double diplôme avec une des écoles d'ingénieurs comme Palaiseau et euh, c'est comment ça s'appelle métier la art et métier donc de Paris donc ñu def benn master tronc commun donc bi ñu génnee ñu am double diplome donc master et ingénieur bi ma génnee aéronautique même principe bi ma def ay entretien avec Safran euh, Dassault DNS et cetera mais ñoom it ils sont dans l'aviation mm-hmm. et l'aviation dafa nekk domaine aviation militaire mm-hmm. dafa nekk domaine boo xam ne c'est classé secret défense boo fu bëggee liggéey il faut nga am nationalité mm-hmm. donc loolu bloqué mu woon ma nag à chaque fois bu ma defee entretien ba mu des lu dul jël ma RH bu vérifier sama titre de séjour rek oh il faut nga am nationalité française pour liggéey fi rien que Sopra euh, euh, commissariat à l'énergie atomique de France mm -hmm. CEA où j'ai mm-hmm. connu madame mm-hmm. donc commissariat à l'énergie atomique liggéeyal naa leen six mois mais pour ma liggéeyal leen six mois il a fallu trois mois d'enquête de la gendarmerie sur toute ma famille <laughs> ma xam ne attends voilà su ma nekkee étranger il faut ma jël seen nationalité pour mën a liggéey seen dëkk bi quoi donc c'est ce qui m'a fait donc mm-hmm. transgresser me spécialiser donc dans l'informatique parce que foofu aw moon difficulté yooyu noonu donc numérique laa defoon d'une manière générale mais tronc commun la donc après mënoon naa spécialisé wu fu ma neex donc c'est en ce moment où je me suis spécialisé donc dans l'informatique mm -hmm. ma vie man personnellement je dirais que j'ai mhm. nekk Kaolack di jàng di Cheval Diodion Ndiaye chaque année dama doon ñëw fii Dakar sama table jaay ba vacances yi jeex ma jël sama xaalis jënd samay kaye jënd samay dama doon jaay soccet ay groupe <laughs> sérieux damay ñëw bàyyi sama copain bàyyi affaire yooyu noonu ñëw fii marché unité 17 bii laa doon daaj sama table dem kolobaan jënd samay socc samay guro ñëw teg jaay bu trois mois de vacances yi jeexee ma jëndal sama bopp ay cahier jëndal sama bopp ay livre mais boobu dama ko doon def mais xaw ma sax luy entrepreneuriat même principe bi ma jugee Sénégal dem France 2013 ma yegg France tag rek j'ai créé une entreprise l'entreprise je l'avais appelé Sen France Prescription Mm pourquoi parce que sama copain yi nekkoon fi université bi may dem France dañu doon wax naan pour nga dem France il faut sa yaay jaay ay oram sa papa jaay këram ma ne attends amul or sama papa amul kër man kon du ma dem France mhm. gëwma loolu man am naa ay mention su ma ñaanee visa dañ may may ma jël sama bourse di ko économiser takk sama billet des fois ndékki ak añ bi wala jël ñaari ndékki ak reer yi voilà tak tak dajale sama xaalis def sama prescription ba année bi jeex ma amee visa te lépp sama xaalisu bourse laa ko financé. Mhm. maa ngi koy fàttaliku ma ñuy wax sama yaa am naa visa parce que xamuñu woon sax maa ngi def ma ñëw j'ai euh, am naa sama visa damay jàngi France. luy loolu da ngay jàngi France luy loolu ne ko yaa man ma ko dama def sama prescription normale am naa ko mu ngi nii damay dem jàngi France sama mag bu góor bi rek a ko xamul. donc en ce moment la sama famille xam ne man mi am naa visa donc ñu ko kotal wutal ma ay billets affaire yooyu passe boobu lañ ma jàppale. Mhm. ma demee France même principe aw ma bourse d'ailleurs sujet bu am importance aw ma bourse donc ma doon taxale même principe bi ma doon dundee Sénégal laa doon dundee damay jàng ba année jeex ma dem raxasi bool dem defi <laughs> lingerie dem bëy lu nekk def naa ko France xam fanaan naa ci mbedd yi voilà parce que daf ma koy jaral man maa bëggoon jàng ba ñu ne ma demal France sama famille ba ñu décidé fayal ma man maa bañoon ba ma décidé dem France tàgguwuma leen dama dem wut sama visa ba am ko ñëw na leen visa baa ngi nii dama bëgg dem jàngi France nag léegi maa kuutal sama bopp ñu xam ne nag kii léegi bëgg na ñu accompagner ma ba ma demee France aussi dama fa nekk di woote yaay yónnee ma papa yónnee ma non damay jàng yoreel course neuf mois bu école tëjee ma dem Corse raxas bool pendant deux mois trois mois takkaat samay saak ñibbi si am xaalis bu <laughs> fay course da démarrer waat mais loolu noonu yëpp man xaw ma woon ne c'était de léegi nag bi ma demee nag ba ñu créer entreprise bi def suñu étude de marché un an may liir ay livres di xool lan mooy entrepreneuriat ci laa ne ah ndekete man j'ai toujours. tu l'as toujours été. et c'est c'était une découverte comme ça et voilà. <laughs> nga dellu sama question rek euh, sa waral euh, nga dellu si fii au Sénégal. li tax nag ma dellu si au Sénégal toujours dans l'entrepreneuriat. Mhm. parce que l'entrepreneur c'est celui qui voit l'opportunité d'aider les gens et de le faire. Mhm. Mhm. da ngay gis nit ñi ñu ngi sonn par exemple ci benn affaire nga ne ñii nan laay def ba faciliter leen sonn bi ñuy sonn ci lii. Mm-hmm. man loolu bi ma toogee à l'époque gis li fi xaw Sénégal mu mars passé gars yi génn mu métti woon ma xam ne tamit pandémie bu laalee France bu laalee Sénégal day gën a métti. Mm-hmm. jeunes yi fii sonn nañ gis am na benn jeune bu may fàttaliku dama seetaan vidéo plusieurs fois mu naan am naa master xaw ma master en lan di dawal charrette en fait. je me suis dit dans ce a Sénégal laa gëm moo ma tax sacrifier sama carrière aéronautique. Mm-hmm. Sénégal laa gëm. moo ma tax di rey sama bopp parce que tôt ou tard man dama gëm ne damay ñibbi sama dëkk. Mhm. loolu laa gëm man gëw may double nationalité parce que opportuniste la en fait. Mhm. je prends la nationalité française je les exploite su ma demee ba voilà sama fin de carrière ma balancer leen ko sur la figure je rentre au Sénégal être président de la République gëw ma loolu. bàyyi ma ma tudd ci madame Diouf <laughs> c'est un guerrier votre mari. Ah, je sais. Euh, je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Euh, vous, euh, qu'est-ce que vous pensez de la fuite des cerveaux euh, Lui, il a eu le courage de revenir ici pour mmh. servir son pays. Euh, tandis qu'on sait aujourd'hui euh, le rêve de tout jeune africain, notamment sénégalais, c'est d'aller en Europe, mmh. étudier, avoir du travail. Qu'est-ce que vous en pensez moi, après, j'en discute beaucoup avec monsieur de ça, justement, parce que je, moi, personnellement, je ne comprends pas comment on peut partir de son propre pays on peut partir dans un pays, mais comment on peut ne pas revenir C'est ça que je ne comprends pas en fait. Mm -hmm. Parce a des amis qui sont donc sénégalais, qui sont partis en France, donc comme il a dit, mais eux, dans leur tête, ils se voyaient pas revenir du tout. Mhm. Et donc on en discute avec eux et euh, ils disent non, non, c'est fini, je, ne reviendrai pas. Parce que pour eux, le Sénégal est égal difficulté. Mhm. C'est pas la il y a des choses qui manquent en France, <laughs> honnêtement. Mm. Mm-hmm. Mais, euh, et donc, je peux comprendre, mais moi, étant que je suis française, déjà, je veux pas retourner en France tout de suite, mmh. comme j'ai dit à monsieur. Mais euh, c'est vrai que je ne comprends pas comment on peut ne pas revenir sur cette terre natale, en fait. Mm-hmm. Déjà, il y a sa famille. Même pour les vacances, ne serait-ce que pour vacances. On connaît des personnes, ça fait 11 ans qu'ils ne sont pas retournés par exemple, à la télévision sénégalaise, on voit beaucoup de publicités françaises, donc le luxe, mhm. euh, la facilité. Ça fait rêver. Mais honnêtement, c'est pas, la réalité. C'est pas la réalité. Même nous, en tant que Français, on galère là-bas. Mhm. C'est quand vous voyez en France, il y a beaucoup de jeunes Français qui, qui dans d'autres pays. que la France. Ils fuient la France parce que c'est tellement devenu compliqué, surtout avec la période de la pandémie en ce moment. Mm -hmm. Et euh, après, je peux comprendre le, le, choix de vouloir partir, mais il faut, faut, faut, faut, songer à revenir sur ses pas. D'accord. Demba, yow tey déjà yow référence nga pour la jeunesse. Mhm. Euh, yow looy wax euh, les nouveaux bacheliers là hier rek euh, président de la République joxe na ay bourses. Mhm. il a célébré l'excellence Euh, looy wax nos jeunes frères la qui viennent d'avoir le bac et qui sont appelés à aller étudier vers les universités françaises en Europe. d'abord je félicite Sénégal am fi bac yombul de <laughs> am fi bac yombul donc je les félicite et puis di leen encourager aussi et je suis parfaitement d'accord avec ça. Mm -hmm. parce que Cheikh danoon wax naan mooy sama wax sama sëriñ danoon wax naan xam-xam bu nekkee ba Chine demal nga jëli ko te kenn wax nga dem fa toog fa. loolu nag état bi la état bi moo war a xam parce que amul kenn kuy dem campus France ñu laaj la boo campus France boo def entretien dañu lay laaj boo de boo demee France boo jàngee ba pare qu'est-ce que tu fais boo boo répondre dama fay toog définitivement dañoo jox visa da nga naan damay dem jàngi wut tuuti expérience ñibbi si loolu tax ñu may la visa mais léegi bu nekkee ñun Sénégal bac dañuy sélectionner les meilleurs. Mm-hmm. yóbbu leen ñu dem. Mm-hmm. dootuñu ñëw ci. man sama sama époque. ñu dem licence ñu sélectionner les meilleurs yóbbu leen dootuñ ñëwati. Mhm. master ñu yóbbu leen dootuñ ñëwati maintenant même ñu ci doctorant yi dañuy ñëw léegi récupérer docteurs yi affaire yooyu noonu yóbbu leen ils reviennent pas dans le domaine de l'informatique dañuy xool boo yi gën a calé ils les recrutent sur des contrats du Sénégal ils les amènent en France man dama ko gis sama domaine gis naa leen à Paris avec de contrats sénégalais. Mhm. ñu leen di liggéeyloo France. Mhm. ñooñu tamit dootuñu bu yàggee dañ leen jox nationalité ñu am fay doom ñoom di développer France. Mhm. mais qui va développer notre pays. si on prend la crème de la crème les élites les meilleurs les mmh. excellents on les amène mais qui va développer le Sénégal et aujourd'hui le président Macky Sall a ce problème mhm. c'est au Sénégal on a la chance d'avoir de grands présidents c'est des visionnaires mais ni ci suuf ñu war a exécuter mooy problème c'est ça le problème du Sénégal donc jeunes yi man je les encourage je les félicite je les encourage ñu dem jàngi wu xam-xam fu mu nekk dem leen ngeen jëli ko bu ngeen bëggee dem sax MIT dem leen gëm leen seen bopp loolu la ay Sorbonne ay MIT ça veut rien dire moyen bu ñu laaj boo gëmee sa bopp da koy am ba may dem France je savais même pas écrire sur du Word waxuma laak di def ay code informatique defar ay application pour des grandes entreprises comme Alliance pour des grandes entreprises comme euh, la douane française pour des entreprises comme la SNCF imaginez leen y' a pas yàggul 2013. Mm mhm. je savais même pas écrire un rapport sur Word. cinq ans après maay toog fii tey di leen wax ingénieur en informatique qui a travaillé avec la douane française et cetera gëm sa bopp la. Mhm. mais boo demee yow jàpp na nga war a nekk université yi ndaw yi di bokkatu am sa diplôme après chômage bi di la rey mais da ngay dee. Mhm. beneen facteur bi aussi gëm sa bopp bu ñu demee France. sedd na métti na wéet na doo gis yaay doo gis pàpp mais da ngay am liberté dañ def attention ci aspect boobu. Mm-hmm. parce que ñun Sénégal xamuñ dëkk yow kese. Mm-hmm. te université la affaire yooyu daal lu ñu ñemee daal nañ góorgóorlu. waaw d'accord boo amee une dernière question Mor Fam cinq minutes moo ci des donc euh, tout à l'heure vous avez parlé de ñi nga xamante ni des contrats sénégalais ñu koy kii jëfale donc tout à l'heure vous avez parlé que vous payez donc euh, des salaires aux stagiaires à hauteur de cent cinquante mille euh, par par par personne donc est-ce que cela s'explique donc vous fondez sur la législation donc française ou bien sénégalaise parce que la plus, au Sénégal il y a des stagiaires qui ne sont pas payés ou bien c'est juste que vous voulez motiver les jeunes là pourquoi ngeen ngeen insister ci ci ci ne il faut il faut que vous payez ces stagiaires c'est juste pour les pour les motiver wala législation bi nga xamante ne moom mooy bu français wala bu Sénégal moo leen imposer pour que vous payez ces stagiaires à hauteur de francs euh, aussi euh, beneen question bi nga xamante ne peut-être que madame madame pourra euh, donc répondre à ça yéen ñoo seen cible ci entreprise parce que quand vous parlez d'informatique mais il y a que que vous Euh, c'est eux que vous, euh, avec qui vous travaillez donc pour, pour euh, les proposer des services et autres. Merci Marc pour cette question. Ouais. Donc pour la première question, euh, pourquoi on décidé donc de payer donc les jeunes sénégalais. Mm -hmm. Il y a l'anecdote en wolof qui dit que bu deful dara du taxaw dëkk bii dañ ko war a structurer waa dëkk bii dañoo war a respecter liñ bind ci texte yi man je di dit à madame mënu ma dem jàngi France ñëw fii bah non je crée donc euh, je suis parti à la banque pour créer un compte bancaire pour pouvoir fay samay salariés euh, la dame ma dit que est-ce boo xam nga ne boo defaree compte bi salariés yi du ñu noo leen defee virement wala nga fay leen par chèque ma ne ku ci amul compte du la fay man du yor liquide di ko fay nit xalaatu ma ko mënu ma dem jàngi France jàng ci université yu mag yi xool ni système boobu nu ñu def ba développé wu may ñëw fii nii di wàccaat beneen niveau su ma amee stagiaire je les obligerai ñu dem ubbi compte bancaire weer bu dee ma defal leen virement man ça me mhm. permet euh, à la fin de l' année su may def samay bilan mhm. mais dafay yomb ci man mhm. mais liquide mooy lan naa dem jëndee ay millions yor ko sama poche ñëw di fay nit ñi attends du ma jëlloo risque boobu sama bopp du ma ko jëlloo sama jabar. du forcé man ñun dañ ko def personnellement pour motiver jeunes waaw parce que voilà on est à fii appartement néeg bu ndaw ñu ne la soixante quinze mille mais boo jëlee boo jëlee bi fayoo ko dara mais lan lay paasee pour ñibbi lan lay fayee këram mais lan lay jàppale yaayam ak papam après état bi mën a seetaan loolu. Mm-hmm. xam nañ li fi ama mënoon nañ def comme ñëpp mais ñun bi ñu arrivé dañoo dem recruter les jeunes qui ont été formés par Orange Academy que je remercie donc de passage. donc ñoom ñoo ñëw recruter ay jeunes yu bëri former leen dans le métier de l' informatique. Mm-hmm. bi ñu ñëwee ba léegi on travaille en parfait partenariat mm-hmm. avec eux. donc ñun suñu majeure partie des recrues actuellement Orange Académique lañ génne. d' accord donc euh, ñu ngi décider euh, émission tire à sa fin un dernier mot votre dernier Mon dernier mot, écoutez, euh, après nous, euh, tout ce qu'on va démarcher, ça sera donc tout ce qui sera administratif, santé, à peu mhm. près, ce sera, à peu près pour le moment. Mhm. Après, donc pour le moment, monsieur m'accompagne parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, le Sénégal, je le connais pas parfaitement pour le moment. Mhm. Et puis voilà après. Euh, GPSP aussi doy na waar. vous voyez complète. on se perd. <laughs> d'accord monsieur Diop ñu bàyyi la tàggatoo yow tàggatoo bi aussi maa ngi koy. tourner envers tous les tout Mm -hmm. Parce que dites-vous que la digitalisation permet aujourd'hui bu moor di jaay par exemple ay écouteurs war ko mën a jaay xaritam yi nekk ci koñ bi kese internet da koy may nga mën a jaay à un milliard deux milliards trois milliards de personnes loolu digitalisation actuellement ni où je vous parle on accompagne un ancien un, un basketteur professionnel mm -hmm. Abdoulaye qui a été donc dans l'équipe nationale du Sénégal mm -hmm. à avoir un site internet à créer sa marque actuellement moom mooy suñu premier client au Sénégal chaîne YouTube aussi donc il y a un deuxième client Aramba qui est ingénieur donc en génie civil boo xam ne aussi on l'accompagne actuellement dans la création de son entreprise ñoo koy jàppale ci am tour jàppale ko ci nu muy trouver nu muy defee vente am nan lay defaree euh, YouTube am site internet am on accompagne aussi des individus en b 2 si mm-hmm. mooy entreprise à un client direct mm-hmm. voilà mais on travaille aussi avec les B2B mooy euh, administration santé ñu nekk ci domaine assurance yi on travaille tout type mm-hmm. d'entreprise de l'informatique parce que mooy informatique ñëpp ko soxla même mm-hmm. rajo bi aujourd'hui soxla mm-hmm. vous savez de quoi je parle donc on travaille tout le monde on accompagne donc les jeunes directement qui sont des entrepreneurs mais qui n'ont pas cette visibilité voilà Aram elle, elle a construit une vingtaine de maisons de de grands chantiers au, à Dakar mais elle n'a même pas qui veut construire au Sénégal. Mm-hmm. comment il va te mm-hmm. Merci. merci monsieur Diop moo fa duma la bàyyi nga tàggatoo heure bu jot na. Mm. ñu bàyyi ñu bàyyi ko tamit kii mu euh, tàggatoo voilà merci. ci <laughs> di kon de je pense que masse journal tey <laughs> euh, voilà ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. di leen gërëm. Euh, Demba Diop Demba Sarr Diop Déborah Gaché. ñoom ñi nga xam ne dañoo jóge France bàyyi fa lépp ñëw fii créer seen entreprise bu ñu tuddee Digitata IT ñu leen di souhaiter bonne chance pour la suite euh, voilà di gërëm aadama euh, ci cabine technique bi am mboole mbokk déglukat Mass Thiam mi ngi ñëw léegi dikk ak yéen ci journal 16 bi